ci njëlbéen li mu doon dund la woon en tant que professeur maanaam jàngalekat. professeur la prof mathématique la ma daan gis école bu mu mës a jaar. dama daan gis élèves yi léeg-léeg dañuy sonn parce que avec la journée continue da ngay ñëw huit heures ba seize heures école ngay yendu. ba ci ñun professeurs yi ak personnel bi. projet la boo xam ne ñun dafa ñu yàgg soxal euh, projet la boo xam ne mën naa ne ay at maa ngi ci doon xalaat. yéen daal di dugg. samp ay cantine scolaire ci l'école yi tey ji mu doon njiitalu conseil départemental bu Kër masar samp ay cantine scolaire ci l'école yi. moo tax bi ñu yàlla defee ñu falu ñu war a wut ay projet pour éducation. ñu dugal ci cantine scolaire. ci lañ ne léegi nañu jël ñetti lycée yi gën a mag muy lycée Jaxaay ak lycée Yëmbal ak lycée. zone de recasement ñu def fa cantine scolaire. resto bi dalloo nañu ko mu tàmbali liggéey tey jile ci mbette ñi mu gën a yitteel di ndaw yi di jàng maanaam élèves yi. maa ngi koy rafetlu bu baax car mm, mm, kii nii cantine bi dina mën a dimbali comme ni nga waxee élèves yu bëri ñi nga xam ne su ñuy ñëw école peut-être parce que c'est la te duñu mën a añ wala li si des si te accessible na pour tout le prix bi cher ñëpp mën nañ profiter si cantine boobu. cantine bi. ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci GIE km d bi ñoom ñoo gagné appel d'offre bi ñu jël engagement nar fi jaay ay ñam yu set te sell lépp ñu fa yéene ko defee ci gàncax bi fi nekk jaay ko ci prix bu yomb. ñun sur 130 GIE yi nga xam ne soumissionné woon nañu ñun. léegi ñun ñu gagné tey jii quatre cantines yi nga xam ne tey moom la ñu ciblé. ñun dinañ leen proposer des gobelets de laax de caakri. de sombi gerte de araw de fonde yooyu yëpp dinañ leen ko proposer ba pare nag à moindre coût. ñeent fukk ak juróom benn million ngir ñett cantine yi ñu samp ko ci ñett établissement yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci département bi lii di njambat bu yàgg ci biir yeneen i lu ci mel ni ay wanang rawat na ci école bi di lycée Jaxaay naka noone pavage bi ñu taxawal ko njiitalu conseil départemental bu Kër Massar ràññee na ko te fas yéene taxaw ci saafara ko ci nu mu gën a